tey comme ni ngeen ko xamee sunu daje bi ñu def fii tey euh, daje la bi nga xam ne danoo ñëw pour xalaat naka nañuy jàppalee euh, nguur bi ci wàllum xëyum ndaw yi et ci euh, loolu am na benn kayit bu nu tënk tuddee ko plan stratégique bi nga xam ne fii ba 2024 la ci plan stratégique boobu dafa ni moom dina jàppale nguur bi ci

Et ci loolu xamna euh, naka nan koy defee moñu fi tax dajalé tay ci euh, euh, ministre de l'économie numérique muy secrétaire général bi ñu koy remercier bu baax ak direction bi di direction des parcs technologie numérique comme ni ngeen ko xamé parc technologie numérique bi nga xamni ni mu paré ci wéru décembre bi ñom dinañ lekkolo ak ñom bu baax ba nga xamné ci parc bi dinañ fa mëna am ay place yu yaatu nga xamné ne liggéey boobu ñu bëgg def dinañ ko mëna def ak ñom and ci aussi ak euh, wa direction de l'emploi parce que ñëpp xamnañ ni bu né xey li ci gën moy xey bi nga xamné da fay stable da fay yàgg et ci lolu dinañ lekkolo ak la direction de l'emploi ci sen convention bobu ñuy wax convention état employeur pour xol naka ni mëna stabiliser euh, xeyu ndaw yooyu actuellement et aussi ànd ci aussi ak direction bi aussi di ONFP parce que mënoo ni xëy te waxoo jàng donc il faut nga former bu baax euh, ñi nga xam ni ngay jox xëy yi et loolu nañ ci ànd ak waa ONFP ak 3FP te et aussi structure bi aussi di DER euh, comme ni ko secrétaire général waxee bu nu jógee ci lii dinañ tase ak moom pour xool ci ban cadre na ñuy demee ak ministère bi pour mën a objectif yooyu yëpp ñu mën ko atteindre incha allah.